arrêté li nga xamante ni ñu ngi koy def parce que nag comme ni ma la ko waxee le président Macky Sall a réitéré maanaam waxaat na ci conférence de presse bi mu doon waxee amul kenn ko xamante ni dina ko tere def li nga xamante ni moom mooy audit ba pare cour bi nga xamante ni jox nañ muy cour de répression pour l'enrichissement illicite mais dañ ko yëkkati rek gars yi commencé jëfur ku ne commencé wax di telli telli ci rajo yi di dem à gauche à droite. non telli parce que non non non xam nga soo telli ci rajo yi. loolu dafay non non non telli wu wuñu. dañu wax ni dañu wax ni ñoom d' accord nañu. amuñu lu ñuy tiit mais Macky Sall na ci bokk na ci jiitu. no dama ne xam nga dama ne. Macky Sall bi nga xam ni au moins daf na ko huit ans ci gouvernement. est ce que dégg nga président li mu waaw képp ku gérer alal réew mi. wala nga enrichir illicitement yoon dina la teg loxo. dama ne kuy wax loolu su fekkoon da ngaa tiit sa démb doo ci doo ko wax tey donc dama bëgg ne ñoom dama bëgg ñoom ñu dal te noppi ñoom noppi kese moo leen war parce que fi mu toll nii fi ñu indi Sénégal ak Sénégal li mu nekkoon parce que tey jii boo seetloo Papa Ngagne lépp loo xamante ne nii président Macky Sall mu ngi koy posé ay acte comme bi mu ñëwee ba léegi dafa méngoog li nga xamante nii moom la sénégalais yi doon xaar parce que bu ñuy wax ay réduction de train de vie de l'État c'est pas parce que dañuy wàññi ministère kese non du loolu mais bi ñu wàññee yi ba pare mais dafa am ay conséquences yoo xamante ni am na ko bàyyi ngeen fu ne nga daan tourné euh, Ndakaaru boo rombee ñu ne ministère a ni ministère a ni ministère mais aujourd'hui def nañ de sorte que lépp loo xamante ni ay ministre lañ muy 25 ministres yi patrimoine bi ñu nekk mooy patrimoine état loo xam ne état bi moo ko moom parce que da nga daan gis ku loué immeuble am ba pare dem signé convention ak état bi dem loué waat ko état bi loge fa ministère am loolu yëpp dañ ko fi daan gis yooyu yëpp dafa dakk beneen bi nga xamante nii ñëw na la suppression des agences yi ñu wax muy 59 agence ak direction yi ñuy def noonu mais c'est des agences yoo xamante ne nii am na ci yoo xamante ne nii mais kenn musul def benn activité ba pare on a dépensé de l'argent mm-hmm. mais loolu dafa doon loo xamante nii dinañ ko auditer te képp koo xamante ni def nga fa lu xóor dinañ ko teg sur la table ak yeneen yi nga xamante ni ah, toujours li li nga xam ni tam ñi ngi ko ci doon xaar muy fon politique gu présidence de la république waxu ci te dafa nekkoon loo xam ne dafa costaud woon bi fa Wade nekkee. mais dama ne. mu costaud te léegi ŋaangu ci. waxul lu ci jëm dama ne dafa noppiwaale ak loolu. le président de la république encore une fois budget boobu dafa wàññeeku lu bari présidence parce que gis nga ci agence yi nga xamante ni supprimer nañ ci. présidence de la république politique yi la ma la wax présidence de la république. jëm dama la. présidence de la république daf ci doon ay am na ay agence yoo xamante ni dañ koo supprimer fonds politique yi ngay wax le président avait promis. de réduire ça de manière considérable te loolu mhm. amul lenn loo xamante ni dinañ wax ne temps la dinañ ci réduire nangam loolu bis bu ñu euh, demee ba peut-être assemblée nationale wala yeneen loolu dina gën a leer leer boo xamante ni sénégalais dinañ ci am Abdou Mbow enrichissement illicite mooy am alal ju bari mhm. te kenn xamul foo ko jëlee oui ndax loolu mën nañ ci jàpp kenn bàyyi Macky Sall mi nga xam ne en 2000 mhm. Derklé bii xaw ma fan la doon loué en 2012 mu nekk milliardaire tey li mu am ci ay compte bancaire ëpp na sept mhm. li mu wax ci ci ci ci déclaration de patrimoine ëpp na deux milliards mhm. mais ci ko xam ni entre deux mille deux mille deux ngay doog a dugg ci gouvernement bi mhm. presque deux mille huit nga ci génn loolu yëpp nga am ko est-ce que mën nañu jàpp kenn ci enrichissement illicite ci Sénégal bàyyi Macky sal euh, yow li nga wax léegi bàyyi ngañ da ngaa xax sa bopp parce que da wax ne am na sept compte bancaire ba tey waxoon ne ma compte bancaire yi lii moo ci bokk man mi mën naa a dix compte bancaire man Abdou Mbow mii mën naa am 10 compte bancaire yow xaw ma ñaata compte bancaire nga am bu la neexee am ay compte bancaire donc compte bancaire du loolu maintenant li nga wax ci ay affaire oto wala leen mais il faut que nit ñi leeral ne. ay kër oto waa déglu ma rek. muy Sénégal muy bitim réew. non non non muy bitim réew da nga wax ne bitim réew euh, yu son la fa am appartement. te loolu yow mii mën nga ko am parce que bu la neexee boo demee États-Unis boo amee garantie nga am fa appartement boo xam ne da nga a am li mu am ku ci xam na ne. aujourd'hui au niveau de da ngay am bail boo xamante ni mais dangay am terrain boo xamante ni dañ la koy faciliter mais moi je pense que nekkul loo xamante ni nii mais mën nañu wax ne c'est des forces euh, c'est des c'est parce que amul benn yoon boo xamante ni ñu ne Macky Sall nee na ñaata milliards la am amul les véhicules yi ngay wax mais véhicules yi c'est des véhicules yoo xamante ni parti bi moo koy utiliser te ñun ñii ci biir parti bi ku ci ne war na laa mën a wax ne oto yi nii ak nii ak nii lañ ko amee donc man gisuma fi fort. nan ngeen ko amee gisuma non dama ne. non da nga ni ku ne ci parti bi te kenn gën la cee parce que nii ak nii lañ ko amee dañu ni nii. dafa am ay sénégalaises ak sénégalais yoo ni dañu gëm projet bi nga xamante moom la ñu tegoon ñu jël seen alal di ci def. di am le président Macky Sall comme il l'a dit il l'a dit devant tous les sénégalais que moom am na ay xaritam yoo xamante ni dañ ko doon jàppale. APR kan moo koy gëm sax. waaw non benn ngi nii toog. di wax ak yow. benn ngi nii toog di wax ak yow waaw mais xoolal gëm ko moo tax tey jii sénégalais yi fal njiitam donc euh, loolu fële laa koy teg bon maintenant Abdou leen jaawalee fal Macky ak folli Abdoulaye Wade non dama ne bu leen nekk fii di ko bàkkoo dama ne xam nga c'est-à-dire xam nga lii nii dafay nuru leneen bàyyi ngañ xam nga Macky Sall il faut ngeen comprendre benn affaire oui nu était collaboration bi am ci ginnaawam ma yeneen parti yi doon na doy waar ñi ànd ak moom ñëpp ci deuxième tour bi bu ñu àndoon ak Abdoulaye Wade mu daanu waaw léegi dama lay wax benn mbir donc loolu aussi dama lay wax benn mbir nekk xam nga mérite ban lañu ñu am Papa Ngagne dañu toog au moment où ce n'était pas évident ñu ànd ak le président Macky Sall di wër Sénégal communauté rural par communauté rurale commune par commune village par village dem di wax ak sénégalais yi dëgg la sénégalais yi dans leur majorité ñoom ñoo fal la président Macky sal mais APR daf ci am say boo xamante ni bu am solo la te loolu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñoom ànd ak ñun nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar sañ-sañ boobu nangul nañ ñu ko parce que loolu moom mooy li nga xamante ni moo am taxul nag ñu ne tey jii ñun ñoo fal président Macky Sall président Macky Sall ñun ñoo ko moom non ba ñu ko falee lañ ko perte mu doon le président de tous les sénégalais te loolu nag ñu ànd ci ak moom nangul ko ko ba pare di ko ci jàppale loolu moo tax ñun amul benn yoon boo xamante ni dinañ ñëw ci président Macky Sall di ko bund xataal wala di ko xatal ci ay poste wala ay euh, cër yoo xamante ni jàpp nañ ne lii yelloowuñ ko parce que dañu jàpp ne comme moom sénégalais yi ñoo ko fal priorité am moom mooy priorité sénégalais yi donc ñun waruñu mën a toog di ko bundu ci lenn li ñu mën a toog mooy am kóolute boo xamante ni amoon nañ ko ci moom démb am ko ci moom tey te fas yéene di ko ci gën a jàppale pour que li nga xamante ni moom la dig sénégalais yi mu def ko parce que lépp loo xamante ni mi ngi ko digoon sénégalais yi au niveau de la campagne mi ngi ciy def ay jéego parce que commencé na wàññi denrée de première nécessité yi. am na décret yu bare yoo xamante ne bàyyi ko quoi Abdou. commencé na wàññi denrée de première nécessité yi mais loolu moom li ci ëpp démagogie la. bàyyi ngañ du ne démagogie xam nga tax du démagogie. non non li ci parce que non mais bàyyi loolu waaye Abdou xam nga tax du démagogie. loolu ngeen di wax rek quoi pour. waaw non mais ñii et tout. waaw dégg nga wax la bàyyi ngañ xam nga Sénégal. ana wàññi Rino parfumé bi boo seetloo. moom moo ëpp luñ ci wàññi. parce que 80 pour cent des Sénégalais loolu la ñuy utiliser

aujourd'hui tey ji fi may waxee ak yow essence bi bi nga xamante ni moom moo doon jar 900 wàññi nañ ko parce que am benn subvention de 4 milliards de l'État boo xamante ni dafa ñu ngi koy ci produit hydrocarbures pour que loolu mën a wàññeeku donc jii lépp loo xamante ni mi ngi ko woon ci au niveau de la campagne mi ngi ci teg loxoom benn par benn te il faut pas oublier que comme ni ma la ko waxee le président Macky Sall dafagul 100 jours mais tey jii li nga xamante ni moom la commencé moom mooy lii Sénégalais yi doon xaar mooy une gouvernance boo xam ne vertueuse mais aussi sobre maanaam bu ànd ak benn euh, dal boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo ko faloon duñu ko jéppi parce que bis bu ne dafay dëkkal ci suñuy nopp ne li ma bëgg moom mooy ngeen wàññi ni nga xamante ni noonu la askan wi euh, di di di dund dund askan wi. mais sobriété bi sobriété bi maanaam mooy dal gi. ndax euh, du kuy làmbaatu rek la moo tax mu mu mu jël. mu jël mu jël. du koy du koy dynamique gu sobriété boobu. xam nga kuy làmbaatu da ngay tël tël coow li bari nga mën a am foo jaar mais koo xamante ni da ngaa tekk dal c'est parce que xam nga fi ngay jaar parce que bu boo doonee tekk rek pënd bi du bari te su pëndi bariwul di nga gis yoon donc moom dafa xam fi muy jaar moom moo tax mu ne sobriété boobu li sénégalais yi di xaar seen gouvernement mhm. moom laa dégg Abdoulaye Wilane wax ko nee na Macky Sall na na na waxam néew mhm. bu mu ñu indil Abdoulaye Wade biis mhm. euh, na taxaw ci li nga xam ne mooy yittey askan wi dégg nga propos yooyu su fekkente ni xam nga xam nga Abdoulaye Wilane xam nga Abdoulaye Wilane wax dëgg yàlla du référence Abdoulaye Wilane bu ne nga dégg ko sax mu saaga secrétaire général bis bu ne nga dégg ko même dans la campagne ak yi pendant dans l'opposition chaque jour muy wax Macky Sall nag donc Ablaye que nag wax nii c'est pas c'est damay wax encore une fois de plus loo xamante ni sénégalais yi ci boppam ñoo naan kii li muy wax du dara. donc man mi nga xamante ni tey ji c'est vrai que ñoo bokk ay alliés génn mais de chaque fois nga dégg mu wax parteem daan na ñoom waxuñu loolu donc kooku bu jugee di waxaat mais du référence ci ñun xam nga ñun ñan mooy référence ci ñun sénégalais yi ak sénégalais yi di leen déglu li ñuy xalaat ak li ñuy wax di leen déglu li nga xamante nii foofu fi ñu jëm est-ce que ñu ngi koy déglu waaw wala déet mais du kenn koo xamante ni da ngay jug rek di wax say wax pour ñooy non non non déglu ñëpp nag dafa am ñoo xamante ni suñuy wax. moi je pense que peut-être dañuy wax rek parce que dañoo bëgg lu ñu wax mais nag Macky Sall fi mu teg tànkam moi je pense que te sénégalais yi ñu ngi koy wax moom mooy fi nga xamante ni foofu lañ ko doon xaar. parce que Sénégal dafa dañoo bëgg nit ñoo xamante nii dañoo dal ba pare am laa tête sur les épaules pour mën leen a jiite. waaw euh, Mbow Abdou. lan ngay wax ci ñuy jàpp ni cour bii ñu wax nii dafay saytu alalu euh, réew mi du dem parce que li tax du dem moom mooy. Mhm. Euh, kii jiite réew mi daf ci mënta set kon mënta dem. Mhm. lan nga mën a tontu ci loolu ñëpp ni cours bi du dem du taxaw du mm. dem non xam nga loolu encore une fois ñi ko wax comme ni mu la ko waxee moom mooy ñi fi nekkoon ñoom dañoo war a noppi toog xaar comme dañ ne du dem bàyyi ngeen nañ toog ci jamono jii di ñëw di nga xam cours bi dina dem ak baa du dem yaakaar naa ne bu dem di am wala ñàkk dem di am def naa ne ñoom ñooñu tey ji ñoo war a xool parce que man comme ni ma la koy waxee rek gis nga seen wax ji du wax dara lu dul waxi nit ku tiit nit ku jaaxle nit koo xamante nii luubal nga loo xamante ni xamoo foo ko yóbbu fu ñu toll nii bunt yi tëj xamoo fooy jaar nga taxaw nag di wax di yuuxu pour que nit ñi mën a dal mais loolu xoqataluñu ñu te du tax ñu arrêté. luubal gi wax ju ñaaw la nii rek wala da ci am ay preuve. du wax ju ñaaw xam nga du preuve c'est dañoo xam nga Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk mais dañu fay gis ay yoo xamante nii naka su dul noonu la pas bàyyi ngeen gis nañ fi ñoo xamante ni seen doom dugg na seen kër. sàcc fa 200 millions police sax moo leen wax ne sa doom sàcc na 200 millions ci kër gi yow yëgoo ko woon kër gi ñu sàcc 200 millions te borom kër gi yëgu ko ñaataa fa ne ñu gis ay affaires yoo xamante ne nii mais sénégalais yi di ci teg seen bët ab arrogance boo xamante ne nii jéggi na dayoo et puis ñu dégg ci état bi fi ne bi ñu demee ba saytu am na 430 milliards yoo xamante ni mi ngi ñu dissimuler euh, euh, ci ci ci ci ci àdduna bi mais loolu mais dafa war a ñëwaat parce que Sénégal ñoo moom xaalis bi te xaalis boobu dañ ko war a indi te dina ñëw nag monsieur Mbow maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay sant merci beaucoup Abdou Mbow mbokk yi mu nekkoon seen mission Faram Facce tey ñu doon recevoir Abdou Mbow Abdou Mbow nag euh, jiite euh, ndaw APR yi nag euh, ci biir réew mi moom lañ doon recevoir tey di ko gërëm bu baax ci wuy si bi nga xam ne wuy si na ko TFM ak Faram Facce mbokk yi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen numéro Faram Facce bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf xaw ma gendarme ngeen je vois que Abdoulaye Wade a tendance à s'amuser avec des choses qui sont importantes. qu'à la place.